dañuy dem ba setal la ci wicc waaye loolu lépp day mel ne tumuranke gi lislaam yonent bi alayhi salaam waxoon ne dana ko tumuranke moom lañ tàmbalee dund ñu war cee gën góor a lu baax nag te séenéwaat li eh, nga xam ne bi sëriñ bi ñëwee yeesal lislaam ba mu yeesaat bi ñëpp xam ba gi ñëpp teg ci bët ñu fexe ba noonee ko seriñ bi bàyyi woon ñu dëkk ko sàmm ba keneen ñu di ko fekk di ko teg suñuy suñuy eh, génération yi ñuy suñ naa mooy suñuy sët muy wéy di wéy billaahi tawfiq kii day laaj mu ne ndax julli ci ak gétt dana baax ak yan mala mooy yi nga xam ne seeni neefare laab na waaw sëriñ bi de julli ci gétt bu fekkee géttu xar la wala bëy walla nag loolu dagan na ko ci julli dagan na ko ci julli ndax sax na ci xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne sallu fi marabidil ganami wala tusallu fi maatini l ibili fu ay xar di goor wala ay nag wala béy si na faa julli dara newu ci mu ne nag foo xam ne ay giléemam fay goor nag moom foofa nga ñu moytu ko bañ julli kon fekkee jur googu wax daal jur yu mel noonu la muy juru kër sañis naa julli ci barab yooyee donte nag boo mënee am beneen barab moo gën waaye bu fekkee dem nga ba nga xam ne foofa rek nga mën a jullee nga fa dara newu ci du yàq sa julli ñu bàyyi xel nag bu fekkee jur googu dañu jax soog yeneen jur yu mel ne ay fas wala ay warax yu mel noonu ñoom seen seen seen li génn ci ñoom day sobe moo tax bu fekkee dañ fay yeewaay fas ak yu mel noonu kon ñu jax soog ñoom kon dootu si déet kenn dootu fu mën a julli fekkee dañoo ber ay nag ak ay xar ak béy rek boobaa mu mën suñ faa julli eh, li des ci laaj bi muy eh, yi nga xam ne mooy génn ci eh, yooyu te du doon soobee mooy lépp loo xam ne dañuy lekk aw aw rek loola liy jóge ci moom dana laab ay tur ndoxam ak ay neferam yëpp ma du doon sobe muy lépp loo xam ne sañis naa jëfandikoo euh, aw yàppam du ko lekk mu dagan loola lay génn ci moom dagan na ndax mu nekk loo xam ne dañuy wax li ñuy wax aljalaala aljalaala mooy xeet yi nga xam ne nii dañuy jëfandikoo ay sobe xam ne dëgg sax seenu ndawal rek soo ko lekk waaye mën mën naa am day jëfandikoo sobe ñoo ñoom lay génn ci ñoom dañ koy jàpp muy sobe waaye fekkee bokkul ci loolu rek lay génn ci moom dana laab wallaahu muwaffiq li sawaab kii moom day laaj mu ne ndax wér na ci sharia ne ab néew buñ ko yenoo su daanoo ci yoon yi foofu lañ ko war a denc sëriñ Seex loolu moom dama yaakaar ne lu ñu yàgg wax rek la waaye ci gëstu yi ñu defagum daal gisaguñ fenn fu mu saxe ci addis wala ci waxi man ñi loolu bu amee dañu jàpp ne euh, accident la rek bu am ñu yëkkatiwaat ko euh, yóbbu ko fañ ko war ñu denc ko fa waaye loolu jotewut ak fañ ko denc dara dara loolu xel sax waru koo nangu ndax mën naa daanoo ci barab boo xam ne dañu xam ne foofu duy armel te dafa denc kenn waaye nag faaw dañ koy yóbbu te fañ ko waroon denc denc ko fa kon xëy na wax ju siiw la rek waaye tegewut ci xam-xam bu wér-wér jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax wér na ne ku faatu li fekk séddalewuñ alalam ay yaxam du tàlli waaw loolu tam sëriñ Seex dafa bokk ci li siiw rek ñu koy wax waaye eh, ki xas faatu moom alal ji fi bàyyi ñam ko bàyyee ñu war koo doon ñoo ko moom ñoo war a jóg miraas ko kenn ku ci am àq jox la àqam xëy na dañ ko wax nii rek ngir bëgg a soññi ñoo ñu nga xam ne ñoom la alal ji nekk seen loxo ñu gaaw miraas ko ndax yeex a miraas gi mën naa indi ay jafe-jafe mën naa am alal jaral sànku ca te boobaa léegi ñoom seeni àq dañ koy ñàkk waaye moom ma nga xam ne dem na bàyyi fi alal ji moom jotewut toog alal ji ba mu génnee àdduna rek la noppee moom alal joojee ña koy donn ñoo ko moom ñooñu nag xëy na dañu wax wax ju mel nii ngir soññi leen rek ñu gën a gaaw ci nañ gën a gaaw miraas rek waaye jubluwuñ ci leen loolu loolu fii moom day laaj mu ne ndax alal ji nga xam ne day jóge ci xeeti fo yi nekk football mu ne ndax alal jooju dagan na ci ab jullit waaw alal jooju day li gën a leemtu mooy ko mën a bàyyi moo gën a wóor ndax xeeti ñu wax musaabaqa li ci islaam daganal mooy ñuy rawant ci ay fas wala rawant ci ay fett ak lu mel ne yooyu ak rawante ci fii ci ndox yooyu moom sax na ci addis ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dagalal na ko neen nañ ko def ndax jumtukaay la yoo xam ne nii eh, nit mën na ci jàng jaar ba bis bu jihaad amoon mu am kattanu mën a jàmmarloog nooy bi waaye yeneen xeeti poy ci des yëpp nag moom eh, gisuñ ci fenn fu sax daal ne mënees na jàggil ak pay kon daal koo xam ne mën nga am beneen Euh, balalukaay alal yu lew moo gën nga bàyyi fii yu mel noonu bu fekkee lu mel ne course laak yooyu nag boroom xam-xam yi wax nañ ne sañ na caa jël alal ci ñaar ci sa ci sàttub alal ji bu mu jógee ci kenn ci ñoom ñaar ñi seq course bi na doon ñoo ñeen ñoo xam dañ leen tegal ab neexal kaneen teg koo xam ne yoonam néew ca amu ca fas amu ci dara mu tegal neexal ba ku ci ñoom ñaar ñi ewante jël ko waaye fekkee alal sax daa jóge ci kenn ci eh, ñoom ñaar ñi seq course bi rek boobaa dootu dagan kenn du ko sañ a lekk ñoom ñaar kon mel na sax eh, jëmmi alal yoo xam ne dañ koy lekk ci ay courses fas sax lu ci anam gu néew lañ ko daganale rawatina nag lu mel nii nga xam ne nii eh, borom xam-xam yu bare bare boo ne eh, dëgërul ci lislaam nit di ko def muy métier am boo ko mënta ñàkk def daal doon loo xam da nga koy tàggate seeram te sàmmoon teg li mu war a am war àndal ci ay ay ay ay teggin teggini mooy nga sol yére yu jot yoo xam dana muur say awra te waxtu wi nga koy defit na doon waxtu woo xam ne bu mu la yàq lenn ci xeeti jaamu yàlla yi waaye bu ko xoolee niñ koy jëfandikoo ci jamono ji dana dem ba waxtu julli jot kenn du tala julli ji ña koy nit ñi itam dana jël seen waxtu loo xam ne nii eh, daanaka li mujj nekk sànq temps na daal ku mën a moytu wala boo ko mënta ñàkk a bu ko def ngir ci alal waaye na nga ko def ngir tàggate ci sa yaram te sàmmoon te jeg teggin yooyu nga xam ne moom lañ wax wallaahu al muwaffiq li sawaab jërëjëf sëriñ bi ci leeral bi kii moom day laaj day laaj mu ne ndax ndax jàng alquran ci biir ay armeel dagan na ci ngirum malik waaw sëriñ Seex da ci li gën a sax ci mazhabul malik yi mooy dañ koy sib dañoo ku jàng alquran ci biir armeel àgg nañ sax sib ko jàngal ku fi jóge ku jóge ñu koy jàngal alquran waaye nag dafa am benn riwaaya bu nekk ci mazhab bi boo xam ne moo gën a moom la ñu ëpp lu ñu jëfandikoo te borom xam-xam yi ba àdd nañ ci te alxaadi yaat andi ko ak alxaraaf yi ñoom wax nañ ne loolu luñ sopp la sax ñoom sopp nañ ko xam ne daa génn àdduna ñu jàngal ko alxuraan ñaanal ko ci bokk na ci luñ sukkandikoo eh, ñi nga xam ne dañoo génnoon dem barab am koo xam ne ndox suuf la koo laal ñu ñaanal ko ko ko doon ñaanal jàng alxuraan ñaanal fatiha jàng fatiha ñaanal ko eh, ndox suuf la wàcc bi ñëwee wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana leen ne lan moo leen xamal ne sax ak mocc la ànd caag ñoom ci lañ def ñu gis ne nag ginnaaw alxuraan ji jariñ na kii dund kon ki fi jóge tam war na ko mën a jariñ kon daal mel na ne ñaari ñaari euh, wax moo nekk ci mazhab bi wax boo xam ne boo demee ci xalil dafa ne dañ ko sib waaye teewut nag ci suraaxul xalil dañ ko fekk ay riwaayaat yu bare bari yuy saxal ne dagan na ñu jàngal nit ki alxuraan bu fi jógee ñaanal ko ca loolu nag boo koy def da ngay yéene tuyaaba ji nga ko yéene ngay jàng alxuraan yi ngir yàlla kese te lay tuyaaba jël na suñu borom na loon fay nga ñaan koom bindal ko kookee nga xam ne moom nga koy ñaanal wallaahu muwaffiq lis-sawaab jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax pikiiru day yàq koor déedéet sëriñ Saar de pikiiru sax xam ne du yàq koor pikiiru boo nga xam dañ ko jaarale fu ñu ko mën a jaarale ci ko rek ba mu dugg ci biir nit ki bokkut yi nga xam ne daal gis nañu day yàq koor may naa woor ba noppi di ko jëfandikoo te du yàq dara ci koor gi kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa jàpp ba noppi yëg ak kàddu gu bàyyikoo ci biiram muy sikk sàkk ba xam ndax njàpp mi yàqu na wala déet mu ne luy àtteem kooku ci lislaam waaw sëriñ Seex de kooku eh, day sikk sàkkal ci lay moom lañ koy xam day waswasa la boo xam ne ni seytaane moo koy faral def ci nit ki bu laabee ba defe ne noppi na mu ñëw di ko jax-jaxal xelam bëgg koo yàqal loolu nag am na ci ci masoon xew am ci ku ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam laajoon ko ko eh, ne ko loolu daal damay dal léeg-léeg yonente bi san alayhi salaam tontool mooy loola boo dalee tam feeg déggoo kàddu wala xet xeeñ la rek jàppal na yaa ngi kum jàpp kon feeg amulu la wér daal ne maanaam jàpp mi toj na rek bul sukkandiku ci jax-jaxe yooyu nga xam ne seytaane da koy ñëw di la ko jax ngir bëgg a jax sam xel ndax day bunt boo xam ne bunt la boo xam ne ci lay jaar ci yàq jaamu yàlla yu bari muy waswasa waswasa bunt la boo xam ne buntu seytaane nag da ciy jaar ngir yàqal nit ki ba jaamu yàlla gu dugg rek mu fekk ko ci biir yàq xelam ba mel na jaamu yàlla ga baaxatul lu mel noonu comme dal ku nekk bul sukkandiku ci loolu nga xam ne mooy jax-jaxe yooyu waaye na nga sukkandiku ci lu wér a wér bala ngaa dem bi jàppaat wala ngay eh, tiim bu fekkee amoo am nga nga sañ-sañu tiim na fekk mu wóor la ne njàpp mi toj na bu wér-wér waaye loola ne saxal di yére yare rek bu mu la tax a bàyyi la nga jàppoon te mooy lu wér mooy njàpp ma baax na. jërëjëf sëriñ Cheikh mbokk mi day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne nii day tuur ndox te du ko yëg ñuy tuddee siital. waaw loolu Serigne Cheikh moom la ñuy wax salasul bawli ñu koy wax am njokkale mën naa am ci tóor ndox mën naa am ci yenn xeet yi nga xam day yàq njàpp lépp lu ci nekk mën na ca am waaye loolu borom xam-xam bi li ñu ci wax mooy bu fekkee nit ki daf koy dal lu baree bare ci jamonoom nga ne bu xaajoon jamonoom bis bu ko xaajoon ñetti xaaj mën neen benn xaaj loolu da ko ci dal kooku dañ koy jéggal lu mel noonu dañ koy jéggal salaasul bawlu boobu su ko defee bu waxtu julli jotee rek sopp nañ mu dem jàpp te julliwaat waaye dañ ko waral ci moom sax jéggal nañ ko ko Euh, te nag mu jéem koo faju nag ndax luñ mën a faj la loo xam ne comme dal ku ne ngaa war a jéem a jóg di ko faj diir boobu muy jóg di ko faj nag te fajoogul lañ ko koy jéggal ak fekkee da koo dal mu ko ne mën na koo faj te jéemu ci def yenn matukaay ba mu faju kooka nag moom dana ci am bakkaar kenn ko teggil ki ñu koy teggil mooy ki nga xam ne nii dal na ko muy jéem a def ay pexe ngir faj ko diggante soosu nag muy faju jéggal nañ ko loolu ñu wax salasul bawli te mooy am njokkale muy xam day génn ci moom te amul sagos man ko téye wallaahu muwaffiq lis-sawaab kii day laaj mu ne lan mooy maanaam wax sunu borom jim wax ne wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiis waaw sëriñ seex di laaya boobu mooy e, laaya juróomeel ci sóotu luqmaan sóotu luqmaan la laaya boobu nekk nekk laaya juróomeel ji e, suñu boroom nag di ci wax naan di ñan nit ñi nga xam ne nii Eh, ay caaxaan moo leen gën a dëgg ay caaxaan moo leen gën a dëgg ba lu mel ne laxwal xadis ñu koy firee eh, ay ay po am ay caaxaan ak po ak wax joo ne doo doon wax ju doon doon dëggu loolu lay tere foofu nee am na ñoo xam ne nii daal dañuy jëndee dëgg ci ay caaxaan loolu nag borom xam yu bari am na ñu ko firee ne laxwul xadis foofu alxinaawu lay firi mooy ay way way yi ñu def nee na am nañu ko firee ne euh, loolu lañ jublu Abdullah ibn Mas'ud am na addis bu ñu jëlee ci moom boo xam ne loolu la ko firee alxinaawu euh, muy loo xam ne ni daal alxasanul basri itam wax na laay boobu ci alxinaaw la wàcc muy ci way way way yi waykat yi def lañ ko wàcc ngir di ko araamal muy loo lu mat a moytu la kon kon foofu suñu borom subhanahu wa taala ci wax ne am na ñoo xam daal dañuy jënde ak dëgg ay caaxaan buñ gisee loo xam ne nii dëgg la ñu bàyyi ko fedd dem dem def caaxaan yi mu leen koy tere ci aay boobu nag waaw moo tax kii dey laaj mu ne ndax dagan na ci jullit boo xam ne day dund ci réewi tubaab yi mu jëfandikoo intérêt banque waa sëriñ sax da intérêt banque euh, moom la wax riba mooy riba ndax intérêt mooy banque bi lebal la xaalis ne dang danga ma ciy tegal nangam boo may fay danga ma ciy tegal pourcentage boo xam ne yéen ci da ngeen ci ànd euh, d'accord ci yéen ñaar wala banque bi lebal la xaalis euh, nga nga dénkaane sa banque sa xaalis banque bi mu la koy dencal di la ci tegal nangam pourcentage boo xam ne nii dénkaane loola tax mu la koy tegal loolu lépp dañ koy tudde alfaayida rabawi alfaayida bankiya waaye buñ ko gëstoo dëgg-dëgg mooy riba rek riba moom kenn ku ne xam na ne dafa araam ci islaam wa ahalla llaahu l a wa harrama riba kon nag koo xam ne mën ngaa bañ a jëflante banque yi ci anam googu moo gën boo demee bi nga xam ne tam say situation wala say eh, jamono poussé na la mënoo ñàkk jëflante banque boobaa tam loolu muy tuddee ay fawaay di ko jox eh, ci borom xoox ñu ubbi mooy mën nga koo jël waaye nag nga bañ koo jëfandikoo nga jël ko su sa capital te nga xam ne mooy intérêt boobu ñu lay tegal nga jëmale ko ci anam yoo xam ne nii day jëriñ jullit yëpp lu mel ne yóbbu ko ci daara yi wala ñu tabax ci ay ay hôpitaux wala daal ñu dimbalee ko ñi nga xam ne nii aajo woon nañ ko te nga bañ ko jëfandikoo sa bopp loolu daal ci borom xam yu bari bari ubbee mooy boo demee ba mënoo ñàkk jëflante ñoom ci anam googu bu fekkee ne yeneen banque nga fa yoo xam ne duñ jëflante ci anam googu nag moom eh, la gën mooy nga dem jëflante ak banque yooyu te banque bàyyi nga xam ne nii dañuy jëflante ci riba loolu dañuy delloo si rek ci alamul islam yi muy monde islamique war nañoo dellu siwaat ci jëflante ci alal jéem ko dëppale ni ko lislaam santaane loolu sax wallaahi alhamdulilah mi ngi commencé mu ngi tàmbalee am waaye ñi ngi ñaan daal mu gën a yokk lu ñuy wax al al bulunukul islaam yi al bulunukul islaam yi wala al iqtisaadu islaam yi gën a tisaaroo ba xeeti jëflante yooyu yëpp ñu mën cee mucc suñu xel di dal allahul muwaffaq jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne koo xam ne day xalaat lu bon ndax xalaat googu muy xalaat lu bon dañ koy jàppee ne mi ngi def bakkaar sëriñ Cheikh day borom xam-xam yooyu mànkoon nañ ci ne boo dee xalaat rek xalaat joo xam daal sa xel rek te doggu woo ci def ko kenn du la ko bindal bàkkaar ndax loolu sax na ci addis yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne inna allaha tajaawaza li ummati ma ma taxaddasa bi nafsuhu maa taxaddis bi anfusihaa suñu boroom daal jéggal na sama xeet wi loo xam ne seen xel rek la nekk nii waaye maa la mu aw yaamalu biha feeg waxee wuñ ko wala ñu jëfe ko rek suñu boroom daloo ko jàppe kon xalaat yi ñëw ci xel nga xam ne doon doon xalaat yu jub li gën mooy noo ci gën a mën a mucc moo gën waaye nag suñ boroom yërmaane ma àgg na ci du la topp loolee fekkee nag da nga caa dogu eh, nga xam ne xalaat bi xëy na bi ñuy sa xel ku séen nga koo def parce que yéene ko ko def moom muy pas-pas bu wér-wér sa xol nga xam jóg nga ngir jëpp bëgg koo defi loola moom dañ la ci bind bakkaar waaye bu rot fee sa xel rek nga daal di koy bàyyiwaat jàll dem ci la neen loola duñ la ci bindal bakkaar bu fekkee sa da ko bàyyi ngir yàlla sax da la ci bindal tuyaaba moom la wax ne isa hamma abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alayhi yonent bi saa sallam daa waxoon ne yàlla wax na ne ci hadiisul xudsi yi bu sama jaam bëggee def lu ñaaw teg fa xelam bu ko bàyyee ngir suma jëmm ji na ngeen ko bindal tuyaaba bu dëgëree bopp nag ba def ñaawteef foofu bu ma xaloon xalaat na ngeen ko bind wenn ñaawteef rek loolu mooy bokk ci yërëm ne suñu borom lu baax nag boo xalaatee ba def ko mu bindal la ci fukki yiw ba di la ko fural ba ci juróom-ñaar fukk ba ci loo xam ne moom rek moo xam ne toll kon Sëriñ Seex daal mu jaradul fikr rek xalaat bu ñëw ci xel rek te jëfewoo ko jëmoo demoo def yenn effort ngir ngir wéyal ko loolu suñu borom du la ko jàppee insha allahu taala kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa woor ndax sañ na wat kawaram wala mu lewi ay weyam waaw loolu da xëy na borom ki koy laaj xelam daa dem ci aj xëy na mën naa am bu dee ci aj daal la tere ki xas xarmal muy lewi ay weyam wala muy watu waaye koor nag wala daal xam ne am na jàppandi yooyu yëpp bokkul ci yàq koor mën ngaa woor di wattu mën ngaa woor di lewi say we ak yu mel noonu bas ak sangu ak yëpp mën ko def boo waree yi dog koor daal moom xam la mooy lépp loo xam dugg ci sa biir wàllu lu ñu jëfandikoo wala ànd sa soxna yooyu daal mooy wax koor waaye yu mel ni laaj ni moom jotewutu koor gi dara wallaahu muwaffiq lis-sawaab jërëjëf sëriñ Cheikh kii tamit mu ne ndax dagan na ci jigéen ju gis baax muy jëfandikoo al wirdul maxuud waaw ah, sëriñ Cheikh li gën a not mooy moom mu bañ koo jëfandikoo moo moo gën ndax ginnaaw eh, julli juróom ak koor yëpp tax na mu wàcc ko ci diggante boobu kon day mel ne noonu ko yooyu wàcce te al wirdul maxuud ak jaamu yàlla la war na koo mën a bàyyi mooy ba keroog muy delluwaat ci ak laab doora tàmbaliwaat jëfandikoo wérd wa diggante soosu mu koy bàyyi kenn du ko jàppee incha ndax ngàntal loo xam yàlla leen ko bindee mu ànd ak moom kon ni mu ko mayee mu mën a bàyyi julli bu dee weeru koor mu sañ a bàyyi koor ba euh, weer wa mu fay ko noonu tam alwadul maxsuus bi mën na koo bàyyi ci fan yooyu bu demee ba laabaat nag loolu ko tàmbali waat ndax alwadul maxsuus bari ay aayaat yu ci nekk aayaat quraan yi sax na koo xam ne dangaa toll foofu mayu ñu la ngay jàng ci alxuraan lu bari euh, lu mel benn aay wala ñaar rek la may nga jàng ngir musloo ko waaye boo ko seetloo alwadul maxsuus am na ci barab boo xam ne da nga baamu faatiha lu man ñaar fukki yoon ak yenn ayaat ne ci biir wi kon day mel ne eh, bu tolloo foofu daal mu bàyyi ba loola jeex bam laabaat door ko tàmbaliwaat dem bañ ca am lan lu muy tiit nag xam ne loolu ngant ko yàlla teg la ni mu ko teggalee julli noonu la ko teggalee yu mel noonu wallaahu al muwaafiq li sawaab mbokk mi day laaj mu ne laay ji lu muy teg ci sunu borom di wax ne wa ida tutla alayhi ayatuna walla mustakbira ka an lam yasmacaha ka anna fi udunayhi waqra fa bashirhu bi adabin alim waaw sëriñ Seex de laay boobu daa jokkoog laay bi ñu wax léegi wa min annaasi man yashtari lahwa alxadis li yudilla an sabilillah moo ko aay boobu ñu sësaloo ñoom ñaar ñëpp sootu Luqmaan lañ nekk euh, wax nañ ne aay bi lu ko tax wàcc mooy an nadr ibnul xaaris ku ñu wax nadr ibnul xaaris daa bokkoon ci yéefar yi daan dem Perse mu wax fi ñu Iran ak réew yu mel noonu daan fa jënd ay bagages ak i marchandises di andi màkk bu ma saan dem foofu nag dafay jëndaale ay téere yoo xam day waxtaan ci eh, ay xisas xisas yi furs yi ak ak eh, buuri buuri Perse yi seeni xissa ak yooyu mu ko daan andi bu ñëwee bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàng alxuraan di wax xissa yi anbiyaaw yi mooy mu woo ay gaayam ne leen benn déglu sayyiduna muhammad ndax moom da di nettali ay xissa yi samut wa aad te man xissa yi ma leen di nettali mooy xissa yi rustum ak ay buuri buuri kisraa yooyu laal nettali kon ñëw leen déglu ma te bañ a déglu li yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax loolu tax suñ borom wàcc bi nag di ko di ko tëgg di ko tëgg naan jëmm la joo xam ne nii boo jàngee alxaan ci wetam day rëy rëylu du ko nangoo dégg ka ànd na fi usna yi waqaraan ka am na mismaa ka ànd na fi usna yi waqaraan mel ne eh, daa am loo xam dañ koo eh, samp ci ay noppam mu tax mënta dégg alxuraan am dëdd gumi dëdd alxuraan ñàkk koo nangoo déglu rek la suñu borom melal foofu wax ne kooku nag yow yonte bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay xamal ne na ko dig na ko dig mbugalu métte métti fa bashirhu na ko bégal mooy na ko dig rek bi azabin alim mbugal mett moo xam ne ma ngi koy xaar bis bu faatoo mu mel na nag dañ naan wax ne euh, sababu nuso bi loolu la waaye nag euh, le àtt bi day matale képp koo xam ne rek yaa ngi dégg ñu jàng alxuraan sewet nga di ko sàggane bañ ca am yitte bañ caa am toppatoo di toppatoo yeneen yoo xam ne bëggut ak alxuraan euh, di ko méngale ak alxuraan loolu rek tëkk boobu mën naa mën naa dal sa kaw mën na kooku ak toxoon wàcc waaye teewut day àgg ci lépp koo xam ne rek yaa ngi jëfandikoo euh, yeneen yoo xam ne ay xesas ak li yoo xam ne bokkut ak alxuraan andi di ko yamale ak alxuraan tëkk boobu mën na dal sa kaw noonu mu tëkkoo loolu ci sóoratu luqmaan ne la ko defaatee sóoratul jaasiya mooy lu li kulli afaakin asim yasmahu ayatillahi tutla alayhi summa yusiru mustakbiran ka an lam yasmaha fa basiru bi azabin alim foofu tam daa delluwaat tëkkuwaat ku mel noonu mel noonu nga xam ne dégg alxuraan ñu koy jàng ci wetam te du ci am soxla mu koy tëkk foofu moom it am na beneen ayatam boo xam ne ñëw na ci suratul isra moom it loolu la ci wax inna ja'alna ala xulubihim akinnatan an yafqahu wa fi azanihim waqra am na ñoo xam ne alxuraan luñ ko nungoo déglu duñ ko nungoo déglu day mel ne seeni nopp daa am luñ ko saxal képp ko ci ba ñu dégg alxuraan yëpp kon ay tëkku la yoo xam da koy tëkku nit ki bu yonente bi di jàng alxuraan wala keneen di ko jàng sawet yitte ji nga war a jox alxuraan ak di ko déglu ak jéem a xam la ca nekk nga jéem caa góorgóor lu baax baax te bañ bokk ci kuréel yooyu nga xam ne ni bu ñuy jàng alxuraan seen wet duñ ko jox yitte duñ ca am soxla wallaahu muwaffiq li sawaab jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne koo xam ne dafa nekk ci julli ñeent rakk ci rakkam ñetteel bi nee na mu toog fekkee na foofu waru foon a toog muy laaj ba xam toogaay bu gàtt boobu mu toog dana waral sujjóot wala déet waaw sëriñ Seex day diggante boobu boo euh, ko sujjóotee sujjóotub ñaareel euh, ci rakkaa bu njëkk wala rakkaab ñetteel war a jóg ci ci diggante boobu ndax du barabu toogaay kon nag bu fekkee toog nga fa as niir bu niir sa guddee ba mat loo xam ne mënoon nga faa taaye kon ab sujjóot la cay war waaye fekkee toogaas su gàtt gàtt la nag nga xam ne taaya xaju fa boobaam dañ la ko jéggal am na baram xam-xam ko dajale ci bayit nga xam ne saahin julusuhu ala witrin bada qadra tasaxuri sujuduhu jala wa in yakun doona tasaxurin fa fii sujudihi xawlaani wal mashuru laa mu wax ne koo xam daa juum toog ci foo xam ne waru foon toog mel na rakkaab bu njëkk wala rakkaam teel ci julli gi doon ñeenti rakka kooku fekkee toogaay ba yàgg na yàggaay bu taaya kon sujjóot bi day war bu fekkee ne gàtt toogaay su gàtt gàtt la ba taaya xaju fa kon sujjóot bi du war ci yan ñaari wax ñëw wax ju njëkk ji mooy sujjóot war na ca waaye wax ji gën a siiw te sukkandikoo ko mooy sujjóot waru ci kon Serigne Cheikh toogaay su gàtt soosu daal dañuy xool toogaay ba xam yàgg na wala gàtt na bu fekkee toogaay su gàtt la kon su sujjóot du ca war bu yàggee nag mu sujjootul sujjootu eh, baax da sujjootu baax da salaam la koy def ndax daa mel ne ku dolli ci julli gi dara kii day laaj mu ne yan mooy xeeti idda ak idda bu nekk diir bi nu muy toll hmm. waaw idda di sëriñ seex ñaari idda moo am lu ñuy wax iddatul wafaati ak iddatu talaaq mooy jigéen bu borom këram gaañoo toogaay bu muy toog ñu koy tuddee tenju ci xeeti idda la bokk beneen ñaareelu idda bi mu war a iddawu mooy jigéen joo xam ne dafa tàgg boroom këram muy iddat talaaq kooku itam idda war na ko bu ci nekk nag war na euh, dafa am gàpp bu ak lim bu mu ca bu dee iddatul wafaati muy tenju sax na ci alxuraan ne ñeenti weer ak fan la asgor di toog asgor bu borom këram faatoo ci tolluwutub diggante boobaa ñeenti weer fukk fan lay toog euh, idda jeex fekkee du si war la mu toog ñaari weer ak fukki fan ak juróomi fan idda yi euh, koñ fase nag euh, moom it day wóote ci jigéen ji ni muy iddawoo am na ci jigéen ñoo xam ne nii ci ay baax la ñuy iddawoo fekkee daa toll ci gis baax weesoogu ko kon baax yi lay iddawoo muy ñetti ñetti ñetti baax lay toog gisee ñetti baax it daje jeex bu fekkee dañ koy wutalaat boroom kër mu door a am benn boroom kër bu fekkee nag daa doon gone gu tuuti goo xam ne gisagut baax wala mu dem ba wees ko mooy koo xam ne eh, aliyaa isa xam ne dem na ba eh, weesu gis baax kookaa ñetti weer lay toog ñetti weer lay toog mooy doon mooy doon iddaam beneen xeetu idda bi ci des mooy jigéen ji tollu diggante moom it saa yu we yeewu ko rek idda ci jeex kon sëriñ Seex idda yooyu moo am mooy koo xam day iddewu ci ay weer ak koo xam day iddewu ci gis ay baax ak jigéen ji tollu diggante na muy idda woo mooy bu amee mu muccee rek idda ci daal dina jeex wallaahul muwaffiq li sawaab jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax barke lu ñuy donn la walla lu ñu ci di fàggu ba am ko la mu ne tamit ndax dagan na ñuy barkeelu ci jëmm ju faatu waaw sëriñ Seex de barke mën nañ ne ñaar ñëpp am na ci ndax bu dee barke boo xam ne moom suñ borom la jógee eh, muy teraanga jum defaral jaamam di wuyu ak ñaanam ak di saxal aw turam kenn dootu ko fàtte barke boobu moom lañ koy fàggu nit moo koy fàggul boppam ci xeeti jaamu yàlla ak góorgóorlu ba suñ boroom may ko wàccuwaay boobu bu dee barke àdduna nag nit mën na ko doon moom ndax mën naa fekk ay waajuroom amoon barke mu jël barke boobu di ci dund waaye am njëriñ dëgg dëgg mooy bi nga xam ne moom sa diggante borom moo la ko defal booba moom lu ñuy lu ñuy fàggu la ci xeetu jaamu yàlla teewul nag nit ki bu fekkee dafa bokk fu baax foofu mu bokk mën na koo dimbale ba barke boobu bu koy sàkk mu yomb ci moom bu koy mu yomb ci moom ba am ak jàppandi ci moom ndax suñ borom wax na ne ci sóoratu zaariyaat wallazina amanu wa tabaatuhum zuriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zuriyatihim wa ma alatnahum min amalin min shay koo xam ne nii dangaa nekk ci lu baax boo fi jógee eh, suñ borom mën naa yëkkati say sët bañ fekk si la ci loolee nga nekkoon muy teraanga ya nga am ci àllaaxira ñu yëgal leen ci waaye nag boobaa dañ ci sart ñooñu nga bàyyi woon sa ginnaaw ñu jéem ci la doon def ci lu baax ñu jéem la ci taaro manqué manqué yi war a am nag suñu borom mën nañ ko mottalil bañ fekk si la waaye nag bu fekkee nit ki ay waajuram ak maamam dañu nekkoon ci lu baax bàyyi ko ginnaaw jéemu ci dara boobaa tam ko gisee ci xisasul anbiya yu bari gis ngeen ne Nuux alayhi salaatu wassalaam keroog ba toofaan bi ñëwee te doomam ja eh, bokk ci ñay làpp bam bam bam ñaanal suñ borom na ko dama bëgg musal sama doom ji dafa ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih keekat da nga jàpp ne sa doom la waaye rek eh, loolu du ko musal ndax nekkul ci lu baax day mel ne nit ki ak lu mu am am waajur bu baax la gën mooy mu góorgóor góorgóorlu xam ne xàllam nañ ko yoon bu góorgóorlu rek mën a dox waaye danga bañ a sukkandiku ci loolu rek jéem a def jëfi boppam ba am barke boobu nga xam ne moo ko fàggul boppam li mu laajaat nag ci barkeelu ci ku fi jóge bu fekkee dañuy jublu ñaan ci barke ku fi jóge loolu loolu dagal la nga tawassul ci koo xam ne daa daa nekkoon ci lu baax ba jóge fi ngay tawassul ci barkeem ni ñu ko def sëriñ bi suñ yaakaar tey ëllëg loolu dagal la sëriñ bi boobu tam gis ngeen ci xaside yu bari di tudd yu baax a baax di ñaan seen barke kon war na ne war na aw yoon ne loolu dagal la lu ma nekk la borom xam-xam sax waxam ne eh, barabu ku baax ma naa tibb ci suuf sax eh, di ci barkeelu loolu sax na ci téere yi ñu ne dagan na kon sañ naa dagal barkeelu ci koo xam ne daa nekkoon ci lu baax bu jógee fii ci anamu eh, booy ñaan suñ borom subhanahu wa taala nga ñaan ci barkeem nga ñaan ci nga ñaanal ko moom moomee nag yàlla doolu ko ay leer ak xéewal waaye nga ñaan ci barkeem itam yàlla defal la li nga bëgg ci faju àdduna wala ala ci àlaxira wallaahul muwaffiq li sawaab euh, mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne dafa doon soxna waaye boroom këram nekkut ak moom dafa doon ab takkoo daal ndax moom takkoo bi dana am ay boo xam ne ni moo soxna si den ñu nekk ak boroom kër ga ñooy yam ati wala déet waaw sëriñ Seex de lu ñuy wax ab takkoo soxna la soxna la ndax mooy soxna si daa dëkkul fi nga dëkk rek waaye ak yi soxna yi am yépp lay am ak yi soxla yi am yépp lay am ci wàllu euh, maandu ci seddu ko cëram seddu ko cëram bu fekkee da ngeen bokkul kër boo nekkee sa kër fan yaa ngi war a nekk te ña fa nekk ci soxna mooy bu bisam ñëwee nga dem fekkee ko fa mu nekk jox ko cëram loolu lañ santaane ba fekkee nag daa nekk ci benn dëkk boo xam ne bokkul leen dëkk bu ngeen nekk xëy na boobaa am daañu ci def jàppandal euh, nu ngeen waxtaane ba saa yoo mën a dem dëkk bu nekk rek nga fekk fa waaye bu fekkee ne bokk dëkk bi da nga a dem mën a dog ci ayam kon noonu nga ko war a séddalee mooy boo séddalee ñi ci kër gi seen na ko ay moom it nga jox ko ay ay bisam yam moom wallaahu ma fi soo jërëjëf sëriñ Cheikh ci leeral bi kii day laaj mu ne lan mooy maanaa waxi suñ borom ji wax ne wala taziru waziratun wizra uxra seex de aaya boobu wala dogit woowu ci ñëw na ci alxuraan ci ñetti barab ñëw na ci alxuraan ci ñetti barab ñëw na ci suratul anham ci aaya yi ak juróom-benn fukk juróom-benn ci qul a ghayrallaahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'in wala a kullu nafsin illa alayha wala tasiru waasiratu wisra uxra summa ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taxtalifuun foofu la ko suñu borom di tudde wax maanaam nit Euh, bakkaar bu keneen toggoo loolu kenn du ko sëf kenn ku ne daal li nga jëf rek lañ lay fay nit lu mu la jege jege tam euh, bu jëfee jëf ju ñaaw sa yoon newu ca digaloo ko ko jàppalewu ko ca kon yow kenn du la ci topp dara euh, baamuwaat na ko tam suuratul Israa ci ay fukki ak juróom wax ne man ihtadaa fa innamaa yahtadii nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha wala tasiru waziratun wisra uxra wa ma kunna muazibina xata nabasa rasula nga xam ne foofu tam loolu la fay fettliwaat rek mooy kenn du jël bàkkaaru sa morom daal kenn ku ne rek la nga la nga jëf loolu lañ lay bindal waxaat na ko tam ci beneen aay ci sóotu fatir ay fukki ak juróom juróom-ñett wax na ci ne wala tasiru wasiratun wisra uxra wa in tad'u musxalatun ila xamliha la yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba kon barab yooyu yëpp mu koy wax day day feddli rek li ñuy wax al masuliyatul fardiya kenn ku ne daal yaa responsabilité sa bopp euh, responsable individuel bi loolu lay lay feddli ko islaam moom kenn ku ne laa jox sa masuliya mooy sa responsabilité boo xam ne yaa ko gàddul sa bopp euh, lépp loo xam ne jëf nga ko loolu lañ lay bindal waaye loolu nit ñuy jëf te àndoo ci ak ñoom loola yàlla la ko teg dàqonte wut nag koo xam ne dangaa Eh, réeral nit ñi suñ borom dana la bindal bàkkaat ci réeral googu nga réeral nit ñi moo tax dañuy fekkaat ci eh, beneen aaya ci alxuraan eh, muy wax ne wala yaxmiluna asqaalahum maa asqaalihim wala yusaluna yowma alqiyaamati amma kaanu yaftaroon ñi nga xam dañu jiite nit ñi di leen sànk ñooñu sànk ko ñu sànk nit ñi suñ borom da leen ci bindal bàkkaar mu boole nag bàkkaar bañ def seen seen sànk te bopp mu bindal leen ko bindal leen tam bàkkaar ñooñu ñu sànkoon kon eh, nit ki daal li nga xam ne moom da koo def moom ci boppam rek loolu lañ ko bindal wala mu xiital nañ ñu def ko fekkee nag da man ma ne nit bi dugal ko ci aw ñaawteef kon loolee nga def moom daan li ci bind yow doon te jonjowoo ko ci sa waaye yaa tax mu def loolee dañ lay bindal bàkkaar boobee waaye nag bàkkaar boo xam ne da ko def sawet rek te neexu la àndoo ci ak moom jàppaloo ko ca loola kenn du la ci bindal yow benn benn bàkkaar dàqonte wut ak na boo gisee kuy def loo xam ne jaaduwut nga mën koo laabiré mu bàyyi ko mën koo laabiré mu bàyyi ko loolu la na sant yow mooy al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar ni nekkee sawet wala nga dégg ko wala nga am nga xam ko ne mu ngi def nangam te loola yoon mayewu ko te nga sañ ko koo tere wala boo xam ne boo ko teree mu bàyyi ko kon yow foofu rek la sa responsabilité am mooy laabiré ko mu bàyyi ko ku ko bàyyiwul nag yow dara doo ci fekk wallaahul muwaffiq li sawaab mbokk mi day laaj mu ne lan mooy sujootu juum ak lan moo teqale sujootu qabla salaam ak sujootu baada salaam waaw sooy Seex di sujootu saaw yi mooy sujootu jamuj ñaari sujoot la yoo xam ne ni kuy julli moo koy def kuy julli moo koy def benn mu wàññi wala mu yokk bu wàññee day sujjóot ñaari wàññee sunna lu ma ñetti sunna bu ko wàññee day sujjóot ñaari sujjóot bu taayaa ba bu war a sëlmal mu sujjóotaatee ñaari sujjóot taayawaat door a loolu la ñuy wax sujjóotu xabla salaam moom wàññi sunna moo koy waral beneen sujjóot bi moom lañ tuddee sujjóotu ba'da salaam li koy waral mooy boo doollee ci loo xam ne tëyoo ko boobaa léegi lañ sant mooy boo ba sëlmal nga sujjóotaat yee ñaari sujjóot taayawaat dellu sëlmalaat loolu mooy sujootu xabla ak sujootu baada kon bu ci nekk ñaari sujoot lay doon leen di waral dañoo wuute kii wàññi moo koy waral muy xabla kii dolli moo koy waral muy baada bu ci nekk da ñaari sujoot lay doon yoo xam ne nii day ànd ak taaya ak sëlmal beneen sëlmalaat jërëjëf sëriñ Cheikh mbokk mi day laaj mu ne euh, dafa yor soxna am na ay doom waaye dafa nekk ci kër baayam baayam moo koy yóbbaale ci dépasse bi mu ne ndax kon moom dina génne muurum koor walla baayam moo koy génn waaleel ginnaaw moo koy yóbbaale ci dépasse bi waaw sëriñ Seex da muurum koor moom lañuy génne bu ñu wooree ba koor gi jeex ci bisu kori gi ba ñoo julli ji nga génne muurum koor ñu ngi koy nattale ci ñaari kilo liibar ci dugub walla ceeb loolu nag Euh, mi ngi lay war yow mi nga xam ne yow sa jëmm ak ñi war a dundal say doom ak say soxna ak say surga yi nit kër gi yow seen dund walla sa ñaari waajur yoo xam dañ nañ dem nañ ba euh, ba néew doole amatuñ luñ mën dundale seen bopp ñooñu yaa leen war a génneel maa kii mu laaj nag mu kàllaf la mu kàllaf la moo xam ne samp na kër am ay soxnaam ami doomam kon day mel ne dundal nga ko waajurum di dundal xëy na da koy dimbale waaye waru ndax nit ki dund bi ko war a mooy dund doom jigéen ak doom ju góor doom ji góor ji bu demee ba kàllafe ak te te dara jotu ko dund ba daal ne wàcc waajur bi boobaa moom moom xale bu góor bi moo war wut lu mu dundale boppam bu dee doom jigéen nag fekk mayee guñ ko tam jébal ko borom këram boobu dund waajur la war kii mu wax na kon mu kàllaf la moo xam ne dem na ba samp kër yor soxna kon bu mënee génneel boppam muurum koor moomee doon te bàyyi ma ko dundalit mu génneel ko boppam moom moo moo ko moo ko war moom lu bopp lañu sàkk mu génneel ko boppam fekkee nag waajurum daa eh, xëy na amul jàppandi ba génneel ko ko waaw mën na ko wàcc waaye wartee fi moom moom jëmmam la war moom moo war a génneel boppam moo war a génneel soxnaam moo war a génneel eh, fekkee am na njaboot baayam boobu koy dundal nag moom génne ko waru ko waru koo génneel asak muurum koor laahu moom mu def ko rek ngir tatawu an coobarewu ko rek boobaa moom dagan na mu coobarewu defal ko ngir yàlla waaye moom jëmm ji moom la war wallaahu al-muwaffiq lis sëriñ Cheikh mbokk mi day laaj mu lan mooy àttab koo xam ne buy julli day tàmbalee faatiha ci bismillahi rahmaani rahim wala sax yeneen saar yi a sax ci mazhab bi mooy al ko sib karihu basmatan taawuza wax bismillahi ak wax aouzu billahi min asheytaani rajim ci jullik farata dañ koo sib ci ngir mi loolu nag ay ahadis yu bare bari ñëw na yu koy saxal bu ci gën a dëgër mooy bi ñëw ci saxiixu muslim te anas ibnu malik radiallahu taala anu soloo ko wax na jull naa ci ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wassalaam julli ci ginnaaw abu bakrin siddiq radiallahu anhu julli ci ginnaaw omar ak osmaan ak ñëpp julli na seen ginnaaw buñ masaan di julli farata bu ñu ne allahu akbar rek faatixa lañu daal tàmbalee alhamdulilahi rabbil alamin lañu tàmbalee seenum njàng waaye daawuñu dugal bismillahi rahmaani rahim ci diggante boobu kon lu bari ci malikiya foofu lañu sukkandiku ba wax ne bokkul ci sunna booy julli farata ngay jàng bismillahi rahmaani rahim bokk na ci liñ sukkanditam jëfi amalu ahlil madina amalu ahlil madina daa bokk ci sukkandikukaay ci masabul maliki yi imam malik bi ñëwee li mu fekkoon waa madina di ko def mooy bu ñu julli farata ñoom bu ñu tefee kàbbaru armal bi rek la daal di songu fatiha ji duñ digg duñ dugal bismillahi rahmaani rahim ci diggante boobu ndax ñëpp euh, yu bari da nañ ne bismillahi rahmaani rahim ci fatiha bismillahi rahmaani rahim fenn rek la bokk ci biir alxuraan mooy fi ñëw ci suratu namli tam li aaya boobu bismillah ma ci nekk moom waaye dañ koy ubbee saar yi rek ubbee ko waaye bokkul ci fatiha bokkul ci saar wi tege ci fatiha tax na booy julli farata moom jël nga koy jàng booy naafile nag loo neexee jàng ko waaye ci farata li gën a sax ci masab bi mooy dañ ko sib wallaahu muwaffiq li sawaab kii moom day laaj mu ne góor goo xam ne dafa nekk ci gu weeru koor di waxtaan ak soxnaam ba mas yu génn ci moom mu ne ndax kooku kooram dina yàqu wala déet waaw sëriñ Cheikh de loolu bokkoon ci lu yàq koor fekkee daa def loolu ba ma su génn bis boobu moom faw eh, da koy da koy jàpp ba bis ba àgg mu fayaat ko dëgg la kafaara du ko nag waaye kooram moom yàqu na ba tax nag woor ku nekk li gën mooy nga sori yu mel noonu eh, ndax mu bañ yàq sa xoor te doo ko yëg lépp loo xam daal boo ko defee mën naa mu yóbbu ci yu mel noonu nga di ko moytu moo gën ci bëccëgu weeru koor kon almasi bu génnee te nga xam ne moo ko tay moo ko génneel boppam ci sababoon la génne boobaa koor ga day yàqu donte ko ci war waaye bis da koy fay bu koor mu fay bis boobee wallaahu muwaffiq lis moom mu ne ndax góor bu fekkee dafa sëy ak soxnaam te fekk booba mi ngi laatikaaf mu ne ndax dana ci am bàkkaar waa bàkkaar bi de xam naa diggante ma boroom waaye lu tax fiq daal li ñu saxal ci fiq moom mooy ixtikaaf ba day yàqu ndax ixtikaaf euh, dañ koy sàtt boole ci koor xam nañ ne booloo ànd soxna day yàqu koor kon nit ki bi doon def ixtikaaf di def jëf ju mel noonu ci biir ixtikaaf bi doonte sax euh, ba mu dogee ba noppi la ci guddi gi sax du tee ixtikaaf bi day yàqu kon daal ixtikaaf daa bokk ci sàttam Euh, mu taraw walis ba ànd ak waa këram diir ba mu koy def waaye bu ko defee rek ndax texaa ba dana yàqu mu am ca mu ñàkk ko ca am nag digganteem yàlla ndax ginnaaw da ko bu fekkee da koon coobare ngir yàlla kese rek mën naa am suñu na ci mu jëkkal ko ko waaye nag bu fekkee ixtikaaf la boo xam ne da koo niseeroon faaw da koy fayaat ndax ixtikaaf boo ko niseer da lay war comme yàq na ko te moo ko tey kon faaw day fayaat ixtikaaf boogee kii moom day laaj mu ne ndax bokk na ci charte wérdul maxuud nit ki di woor ñetti fan ci weer wu nekk ak lan mooy atte koo xam ne day jëfandikoo al wérdul maxuud te du woor ñetti fan yooyu waaw sëriñ Seex de al wérdul maxuus buñ delloo ci sart yi nga xam ne bari na fu muy ñëwee ci e, téere yi ko indi daanaka fu ñu ko indi dañu indaale waale sart yi waaye boolewuñ ci woor ñetti fan boole wuñ ci war ñett fan sàtt yi sëriñ bi sàtt daal moom euh, bokk na ci kiy jëfandikoo wi maxuus muy muy muy naafila muy naafila guddi gu nekk mu naafila ñaari si ba nisif guddi gi jot mu naafila loolu daal lañ ko sant fekkee mokkal alxuraan fekkee mokkal alxuraan te mu jàng kem kattanam ci alxuraan bokk na ci sàtt wi maxuus tam muy takkoog mbo julli mbooloo julli mbooloo muy fexe ba julli gu nekk koy jullee ci mbooloo lool tam bokk na sàtti alwadul maquus bokk na sàttim tam muy jàng muy jéem a xamlu lépp lu war ci mu kàllaf at yi nga xam ne moo war mu kàllaf mu jéem ko jàng ba xam ko yooyu bokk na sàtti alwadul maquus waaye daal fekk ñu sëriñ bi bind ne faaw da ngay woor ñetti fan ci weer wu nekk donte nag woor ñetti fan ci weer bu nekk moom bokk na ci li sax ci sunna ba sëriñ bi sax andi ko ci masaalikul jinaan di ko rafetlu wax ne wa kaana malikun imaamuna yudim min kulli sahrin sawma abdi xarfi jiim al imaam malik daan saxal weer wu jot mu woor ci ñetti fan mu ko xam coobare woo nga di ko def yaa ngi def jaam yàlla gu baax a baax waaye nag duñ wax ne sart la ci jëfandikoo al wadul maxfuus wallaahul muwaffiq li sawaab kii moom day laaj mu ne ndax góor goo xam ne dafa for xale bu jigéen nee di ko yar di ko toppatoo dem ba mu mat a euh, sëy mu ne ndax kon mën na koo jël may ko doomam ju góor ndax kee xamul kenn ci ay mbokkam waaw sëriñ sa fekkee gëstu nañ ba xam ne gone gi koy bëgg a may nekkut maxaramam mën na ko takk soxna lool lu baax la sax loolu lu baax lu rafet la ndax sax na ci hadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ayyuma rajulin kaanat indahu walida fa allamaha wa axsana taalimaha wa addabaha fa axsana taadibaha summa aataqaha wa tazawajaha fa lahu ajraan képp koo xam ne ngaa fekk gone bu jigéen nga jàngal ko njàng ma sëkk ba mu xam nga yar ko yar bu rafet fekk ko kuñ moomoon la sax xale bu jigéen buñ moom nga def ko noonu def ko defal ko loolu yar ko yar bu rafet jàngal ko eh, daal di koy goreel wutal ko boroom kër benn yow soof nga takk wala nga wutal ko boroom kër bu baax kooku am nga ci ñaari tuyaaba nga ñaari tuyaaba ci li nga def li nga boole ci ñaari baax yu ba nga boole mooy jàngal nga ko yar ko yar bu rafet wutal ko borom kër bu baax kon day mel eh, daal ba xam ne bokkut ak dara ki nga koy bëgg a may ci wàllu jege ñaale te mën koo takk kon loola buñ ko defee sax lu baax lay doon lu rafet lay doon loo xam ne lislaam da koy rafetlu te tuyaaba juree day ngi ci ne koo xam ne amee woon ay fan ci weeru koor war koo fay xamul num toll nee na mu tàmbali di fay ba demee ba ci biir nag mu yëg ne moom li mu amoon ci bor mat na sëkk mu mat mu daal ci bëccëg bi ne ci digg bëccëg bi mu yëg ne moom li mu amoon ci ay bor mat na sëkk dafa ëpp nee na mu dog mu ne ndax loolu sañ na ko wala war na koo sañ de ndax fekkonte wooru wooru ngàtt nga la moom nga xam ne ko coobarewu boo xasee dugg ba ci biir dootoo ko sañ dog waaye ginnaaw daa jàppoon day fay farata te dem na ba mu wóor ko ne farata jabat na sëkk kon day mel ne ba muy yéene mu yéene wu doon tatawwa yéene wu doon coobarewu ak naafila waaye farata la yéene woon te comme que farata yi ko waroon mat na sëkk sëkk day mel ne am na sañ-sañu dog koor googee waa léegi nag bëggee woor woor ko nga mu dool ko yéene woor ko wallaahu al muwaffiq li sawaab kii moom day laaj mu ne ab jullit bu fekkee dafa yor loo xam ne nii charia wo digalu ko maanaam jox ko sañ-sañu moom ko lu mel ne sàngara wala mbaam xoox mu ne ndax loolu ku ñëw sàcc ko di ci am bàkkaar wala déet waaw ku sàcc lañ ci mën a wax ci wàllu feq mooy ku jël alal ju mel noonu moom kenn du euh, def ceew àtte bi santaane ceew muy dagg loxo bi koo xam na ngaa jël alal yi jullit joo moom lu mel ne Eh, loolu ñaar yooyu mu tudd muy am ñoll wala eh, lu mën a xinsiir loolu ab jullit ko sëñte moom ab jullit sañ koo moom bokk ci alali jullit buñ ko mayoon sañ koo jël sañ koo jënd sañ koo moom ci genn anam kon nag bu ne woon maa ko moom it ba nit jël ko ci moom it dañuy jàpp ne jëlul alal ji eh, jël alal jëm jël du alal ji ko leew moom comme jàpp ne moo ko moom moomu ko kon nag kenn du ci dagg loxo kookee ko jël jëmmi ki ko jël nag xëy na bu ñu dëggul loxoom it eh, def na loo xam ne jaaduwut ndax jël na jël na yëpp loo xam ne moom ko moom it ndax sañu ko moom moom it moom bu fekkee ab jullit la moom it sëñ bi jël alal jooje di ko jëfandikoo moom kon xëy na kenn du dagg loxoom ci wàllu fiq ndax alal jëm jël kenn saña moom waaye moom it def na loo xam ne waru ko woon def ndax moom ci boppam sëñ te jël alal ju mel noonu di ko jëfandikoo rawatina buñ ko askanee kaneen wallaahu ahsanallahu ilaykum mbokk mi day laaj mu ne lan moo wuutale eh, li ñuy tuddee xibla ak penku waaw xibla de suñu seex mooy fi ñuy jublu bu ñuy julli farata bu ñuy julli moo fa walli wàccaka satral masjidil xaraam mooy xibla mooy kaaba ga kenn ku nag booy julli kaaba ngay dàkk loolu ngay dàkk nag mooy xibla suróox nag mooy fi jant bi fenke fekkee dangaa féete xibla ci sowu kon bu bu jant bi fenk euh, foofee muy fenk mooy doon sa xibla donte euh, léeg-léeg duñ dëppoo lool lool léeg-léeg duñ dëppoo waaye ci wàllu penku rek mën nañ penk bi kon mooy doon xibla ji teewul nag euh, day am gëstu yuñ ci def ba xam ne xibla ji mooy fii màkk dëgg xibla ji màkk dem yaatoo rek lépp nga ne jàpp ne xibla la dafa am ci loo foo xam ne moo ci xibla ak loo xam ne penku rek la kon penku moo gën a yaatu xibla moom suruux mooy fi jant bi fenk rek lépp lu la féete penku rek loolu suruux la ci yow ndax ba demee ba màkka wala yeneen réew yi nga xam dañu féete màkka penku ñoom bu ñuy julli dañuy wan jant bi ginnaaw dañ koy wan jant bi bu fenk da leen wan dañ koy wan ginnaaw bu ñu julli suba kon nga gisee ci ne xibla ji moom la ñuy dàkk mooy boo nekkee foo nekk rek màkk ngay dàkk moo xam da ko féete wetu sawu wala nga féete ko penk wala nga féete ko gànnaar wala wetu ndeyjoor wala wetu càmmooñ rek ko ci mën a féete rek yow kaaba ngay dakk kon mën naa am boo nekkee ci barab yoo xam ne kaaba gi laa féete penku kon ci wetu penk boobu dàkk rek boobu muy surox bi mooy fi jant bi fenke waaye jotewuñ dara ñoom ñaar ñoom ñaar ñaari mbir la yoo xam ne jotewuñ dara liñ sakk ci yow nag ab jullit mooy mu jéem a dàkk xibla waaye doo dàkk fi jant bi fenke yow la dàkkloo mooy xibla bu dëppoo fa jant bi fenke baax na bu dëppoo wutit yow lañ la sant mooy nga jéem a dàkk fa xibla ja nekk kii moom day laaj mu ne kàbbar yu ñuy def ci noddu ñaata la ak ndax am na ay nettali yu wuute ci baat yi ñu nodde baat yi ñu nodde ndax am na ay wuute ci biir waaw ñu sax de kàbbar yi ñuy kàbbar ci noddu yu njëkk yi kàbbar yu njëkk yi riwaaye bi gën a dëgër ci masar bi mooy ñaar lay doon allahu akbar ñaar yoon nga koy wax dooroy jàllale ak gel noddu ngir dañ ko sukkandiku ci hadis boo xam ne imaam muslim moo ko génne jële ko ci abi mahzura mu wax ne yonte bi sa sallam jàngaloon na ko nodd ni ko jàngale woon mooy daa baamtu allahu akbar yi ñaar yoon allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ba nodd gaag waaye jëmmi takbiraat yi ñaar yoon la ko wax rek njëlbeen bi am na nag yenn riwaayaat yu wuute si ñuy nodde riwaayaat yu ñëw ci noddu lu jege ñetti riwaay yu bokkut yoo xam ne bu ci nekk bu wér wër la eh, ci jàpp boo ci jàpp rek jàpp nga ci sunna eh, riwaay bu njëkk bi boo limee baat nodd ya ci baat ak juróom lay doon baat eh, ak juróom lay boobu riwaay riwaay bu wér a wér boo xam ci hadiis Abdullah ibnu jëlee ci moom nodd gi ko ko ñeenti ñeenti kappar dafay kappar beneen riwaaye bi nga xam ne moom la imaam Tirmisi yi génne moom moom ñeenti kappar la waaye da ngay baamtu saxaada yi da nga koy baamtu ñeenti yoon xam ne daal boo la yoo xam ne yu am na ci boo xam ne nodd bi fukki baat ak juróom lay doon am ci boo xam ne nodd bi fukki baat ak juróom lay doon am ci riwaay bi nga xam ne moom la jëfandikoo fii nag mooy bi nga xam ne nodd bi fukki baat ak juróom ñeent gën a dëgg ci masab bi te boobu moom baatu takki bi dax bi ñaar nga ñoom ci baax danga koy baax mu loolu wax saxaate yi wax ko naag loolu yëpp wax saxaate yi ci kaw man na ko sa ak m sëriñ seex ñax riwaay yooyu lañ gis nottu yoo xam ne sax ci ak a dëgg ñun ñu koy jëfandikoo kii mooy bi nga xam ne xabar yi ñaar yoon da bu bàyyee alal ju bari ña ko doon jël alal ji def ko ci muy laaj fan mooy gàddu bàkkaar bi ndax ñoom ñu ko doon la wala moom mii liggéeyam alal ji faatu bàyyi ko waaw daa mel ne moom ñu doon alal ji dañooy gàddu bàkkaar ndax aay bi ñu jàngoon ci ginnaaw rek wala may su ko jëfandikoo tam bu fekkee daal mu alal ji moom mi ko fàgg woon fàgg na ci anam gu leew te it warul maanaam mu doon tiitaange ne ba ko bàyyee jaboot ki dañ ko dugal ci anam yu jaaduwut loolu moom dara la ko fekk waaye nag fekk alal jeex anam ko fàgg ñi ma ko nar a bàyyee ci caaxaankat ko leen bàyyee sa alal euh, duñ ko jëmee ci anam gu baax kooka tam la mooy balaa faa jóge bu ko wóoreen mi ngi bëgg a dem yooyee alam a ko dugal bu baax koo xam ne dimbale ñooñu ci a mooy yàlla waaye nag fekkee dara amu ci nga xam ne ñu ko bàyyee daal ñoom ñoom la ko waaye bàyyee na ñoom ñoo ca def lu ñu ci war a def waaw da ko fekk na waral def a fàggu nag ci anam gu lew te it amoon na yaakaar ne boo leen ko baax kon buñu ak defaat ci ginnaawam ñoom ñooñu la engagé ñoom ñu ko def waaye moom ko doon ak yoonam jërëjëf sëriñ Cheikh mbokk mi day laaj fii jàpp fan lay toll def lay toll ci njàpp bi def yéene waaw yéene bi sëriñ Cheikh daa bokk sàpp nga xam ne mënta ñàkk ci mooy farata ci njëkk sax yéene nag ci xol lañ koy defee boo fasee sa xol la bi fas yéene baax na bu nekkee sa xel ak koy def booy bëgg a koy a moo tax boroom xel di wax ne wa niyyatu rafil xadasi indahu muy lim maanaam looy xas kanam nga koy defante di kaa boole foofu ngay yéenee tam teewul nag wax na ne jéggale nañ yéene nga na ci daal ko yéene eh, ba nga nga daal tàmbali jàpp waaw tam baax na fekk soriwuñ loolu waaye suñ la ko sàkk dëgg-dëggal mooy booy dem bay tàmbali xas xas jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax kii sangu janaaba su jëloon ndox ne ndax loolu dana baax waaw daa bokk ci faratay sangu faratay bokk na ci ak dal bomb euh, doo sañ a sotti ndox mi rek mu daj ko yaram kapp ci bomboo ko da nga boole ko bomb am na ku ma sa ñëw di ko laaj ne ko ayul amaali ahabu ilallaahi taala xeeti jaamu yàlla yi gan la ci suñu borom gën a bëgg mu ne ko salaatu julli julli daal mooy jaamu yàlla gënal yàlla mboolem loo koy defal mu ne ko ak gan mu ne ko ak topp ñaari waajur topp ñaari waajur kon moo ñëw ci daraja ñaareel ci jaamu yàlla la gën a bëgg mu ne ko ak jan mu ne ko aljihaadu fi sabilillah ngay jihaad ci yoonu yàlla loolu tam bokk na ci jaamu yàlla yi suñu borom gën a bëgg kon sëriñ Seex dañuy gis ne eh, topp ñaari waajur daal eh, lu réeré la ci lislaam lu ci am wàccuwaay la sëriñ Tuubaa radiallahu taala anhu gis ngeen ni mu koy soññee ci barab yu bare bare rawati rawatina ci nax ju xadaayil xaaj am na bunt bu yaatu te def boo xam ne nii ci àqi waajur la cay wax wa burra waalidayka warfuq bihima wa kun mubaadiran ila amrihima wantahi xan jumlati ma xat nahayaak xanhu farab fa tasdaad fa yasdaadu bi yodaak xanhu li rabbika fa yasdaada odaak bi mi ngi sant foofu na ngeen toppoo seen waajur na di topp seeni waajur leen déglu te ngeen ñeewante leen ngeen jàppale te lépp lu ñu la digal nga gaaw def ko te lépp lu ñu tere nga daal di koy bàyyi nee na ci loolu la ci ngay doole ak kawe doole ko ak kawe fi ngay gën a jege sa borom kon topp ñaari waajur lu am solo la ci lislaam lu ci am wattukaay la ñaar ñàkk topp ay waajur nag moom it lu lu rëy rëy la lu bàkkaar bu mag a ngi ci boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëkkoon na ci tëkkoon na ci wax ne raxima anfu anfun raxima anfun summa raxima anfu man adraka abawayhi inda alkibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadxulul janna mu wax ne ki tuskare dëgg dëgg tuskare ñeel na koo xam ne nii dab na ay waajuram ñu nekk ay mag te tàbbaluñ ko àjjana jëfewul lañ jëfi seen set set seen xol bañ gërëm ko ba suñ borom tàbbal ko àjjana ngir ngërëm loole képp koo xam ne loolu raw na la ne la wóor ne am nga réer raw na la tuskare dab na la hadis la bu wér boo xam ne imaam muslim moo ko génne topp ay waajur nag bokk na ci niñ koy defee mooy di leen bañ a lor ci kenn anam moo xam ci sa làmmiñ wala say cër nga bañ leen caa lor di leen wax ci ñoom wax ju baax eh, di leen teral bokk na ci tam di leen nemmeeku ji fekkee bokk leen fu ngeen nekk léeg-léeg nga jóg ngàbb sa eh, saw seen sol seen dem seeti leen siyaare leen nemmiku leen ñu leen eh, teraanga loolu bokk nañ ci rafetal ji ñaari waajur bokk nañ ci itam bu ñu demee ba néew doole ngay nga yoral leen seen dund nga gàddu leen seen dund loolu tam bokk na ci anam yi ñu toppee ay waajur bokk na itam di leen lépp lu ñu digal ci dugg mooy yàlla nga fekk si leen nga topp leen ci lépp lu ñu la digal te loola naqariwul suñu borom subhanahu wa taala rek loola nañ la nga def ko bokkoon na ci tam di leen jéggalul bu fekkee dañ laa jiitu nga leen di ñaanal njëggal di def lu baax leen ko yéene tuyaaba ji bokk na ci bu fekkee amoon nañ ay xarit ay ñoo xam ne dañu seqoon ak ñoom wëllëre mu seqoon ak say waajur wëllëre wala ñu amul luñ seq bu say waajur jiitoo bàyyee la ak ñooñee nga mottali waajur wala wala woo ca ñoom yëpp xeeti anam yi toppe ay waajur la bokk ba ci fekkee dañoo bàyyi ay bor nga fayal leen kon yooyu yëpp ay anam la yoo xam dañ koy toppe ay waajur waaye daal sëriñ Seex topp waajur moom lu am wàccuwaay la ci lislaam lu mu santaane la lu am tiyaaba la tam wallaahu al sawaab kii moom day laaj mu ne kuy naafila gàg amul ku ko gàgganti wala mu rukoote robo ji muy jàng àggut mu ne ndax kooku ak naafilaam dina wér waaw sëñ sax kooku naafilaam dina wér ndax naafila eh, xëy na bu fekkee mokkal nga alxuraan jàng kaamil du ma àgg moom da ci bu dee taraweex bëgg nañ ko ci lool waaye nag boo xasee jàng faatixa rek saar woo ca teg rek woow doy na wala aayaat yoo jàng boo doon jàng aw aw saar ba àgg ci barab mënatoo jàll tam bu la neexee nga rukkoo foofa wala nga jé nga bàyyi laaya jooju dem ci jeneen loolu sax julli farat julli farat sax loolu dagal na ci boo doon julli farat ba jàng fatiha bay jàng beneen saar ba dem ba mënatoo jàll bu la neexee nga daal rukkoo foofa wala nga bàyyi saal wa nga nekkoon dem ci waneen àggale ko fa loolu lépp sëriñ wax na ko ci aljawharu nafiis waxeen wu leer a leer kon jëmmi gàkk ci naafile gi tee nga mën ko àggale wala neexee foofee nga taxaw mënutoo jàll nga rukkooyee foofu daal di indiwaat rakkaay bi des wala fekk am nga ko la mën a jàppale gàgganti la mu gàggante la nga jàll wala nga bàyyi saal woowu dem ci waneen saal lu ci nekk rek lu dagan la dara newu ci wallaahul muwaffiq lis-sawaab kii moom de laaj mu ne koo xam ne dafa am ay julli yu baree bari yu ko raw nan la koy faye ak moom ndax sëñ naa naafila te fekk mi nga amee ay bari julli yu bari waaw sëriñ si de koo xam ne ni nga yor bari julli eh, danga koy fay gi da lay war da lay war ci anam ga nga ko ga nga ko lebe woon bu fekkee leb lañ koy tuddee Ah, am gan anam gam la rawe woon noonu nga koy faye maanaam zalika mooy fekkee julli gi eh, bi mu lay raw booba yaa ngi ci nekkoo ci tukki ñu koy tudde asalaatul xadariya kon boo koy fay da koy julli julli gi mu la mooy julli gu ma sëkk bu dee tisbaar ak takkusaan ak gee nga mottali leen ba mel ñeenti rakka bu fekkee ba ngay eh, julli googu bu lay war da nekkoon ci tukki yàlla dogal mu raw la fayoo ko ba eh, ba tukki ba jeexit boo koy fayaat kon noonee nga koy fayee rek fekkee julli guñ sañoon wàññi la nga wàññi ko waaye fay baru julli moom day lu war a war loo xam ne nii sëriñ bi radiallahu taala soññee na ci ci biir al jawharu nafis eh, wax ne xada uma fi zimmatin min al idi bi fawrin xul yubuhu yuraa eh, fay ay farata daa mënta ñàkk daa war a gaaw sax waroo koo yeexe boo yoree bari julli na nga gaaw daal di koy fay saa si mën naa am nag bari julli bu baree lool ba mënoonu koo fayandoo benn yoon nga ko def sa kattan rek sëriñ bi jàngal nañ ci yoon woo xam ne nee na ku koy def duñ la jàppale ku sàggan duñ la jàppale ku sàggan fekkee sa bari julli daa bari lool lool ba mënoo ko fay ci benn jataay wala ci benn bis wala ci ñaari bis wala ci ñetti bis kon daa wax ne wa kullu man fi kulli yawmin salla xamsan min al ayaami fi lmusalla fa innahu laysa min almufarritin bal innahu yuaddu min mujtahidin képp wax ndaayu bari julli yu baree bari waaye bis bu nekk dana fexe ba fay euh, juróomi juróomi bis kon kenn dootu ko jàppee ku sàggan loolu lañ koy def moo bu fekkee bari daa bari lool boo dee bëgg julli tisbaar nga julli juróomi tisbaar juróomi tisbaar yoo xam ne nii da nga koy faye bor yooyu nga yore woon loolu jul tisbaar ji teew bu takkusaan ñëwee nga def noonu bu timis ñëwee nga def noonu bu gee ñëwee nga def noonu bu suba ñëwee nga def noonu su ko defee bis bu daanu rek mel na ne fay nga juróomi bis yu ma sëkk sëriñ bi ne rek koo xam ne nii sa boru jul daa bari lool ba mën na koo fayaloo benn yoon boo ko doxalee noonu dañ la jàppee ku ku góorgóorlu kuy farlu fekkee mënewoo ko noonu tam nga def sa kem kàttan rek dañ lay jéggal te naafile yi naafile yu bare bare dañ la koy jéggal boo yoree bari julli ay faratay julli dañ lay jéggal naafile yi ba mu des rek safaak wiitar safaak wiitar mën nga koo def ak julli eh, kori ak tabaski al aydaani sañ nga koo julli ak li ñuy wax muurum jant ak muurum weer yooyu itam mën nga ko julli ak julli ñaar rakkaay yi nga xam ne mooy jiitu suba ñu koy jullee ñu koy tuddee salaatul fajri ak julli mbaaw yooyu rek ngay julli waaye yeneen xeeti naafila yi ci sib lañu koy wàcce muy naafila ak yoor yoor ba ci naafila koor yi sax taraaweex yi booy rey bari julli waru la loolu nag lu bari bàyyi gis koo xam ne day yor bari julli yu bare bari jéemu ko fay xanaa dem bokk ci naafila yi naafila yi ñu def ci jumaa wala ci barab bu ñu koy defee mu jàpp na loolu moo gën fay bari dee ginnaaw loo yor bari julli moom déggal nañ ko naafila yi ñu def ci jumaa ji ak feneen fu maa doon muy taraaweexe jéggal nañ ko ko lam naroon taraaweexe na ko fayee bari julli yooyu mu yore kon daal Serigne Cheikh koo xam ne ngaa yor bari julli na nga ci góorgóorlu bu baax fay ko ci anam googu nga ko lebe woon wallaahul muwaffiq li sawaab kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci koo xam ne dafa yore liggéey bu metti boo xam ne ci lay wutee lu maam mu ne kooku ndax dagan na bu weeru koor jotee mu bañ a woor ndax su bàyyi liggéey bi du am beneen liggéey bu mu jàpp te liggéey bi metti na mënu boole ak koor gi liñ seex bu metti moom boole ko ci ngànt yi tax nit ki sañ a koor nit ki sañ koor dañ koy lim limaale wuñ ci liggéey bu metti kon liggéey bi lu metti metti rek yow fas yéeneel na jàppal ne fas yéeneel woor xëy nag boo demee ba ci biir liggéey ba eh, mu metti ceebu mënatoo ko boole ak woor ga boobaa la ngànt yi loo dab waaye bul tey jii daal liggéey bi ma nar a liggéey daal nar a mett rek ba du ma woor déedéet fa séenée la woor tàmbali liggéey bu fekkee mën du ko mënu ko ñàkk def boo demee ba ca biir nag ba euh, ca biir te yàlla dogal mënatoo ko euh, mënatoo boole liggéey ba koor ga boobaa nag nga door a dog wala nga bàyyi bu fekkee mën nga bàyyi liggéey ba te du yàqu boobaa nga bàyyi liggéey ba àggale koor ga bu fekkee nag boo bàyyee liggéey ba xëy naa gën a boo ko bàyyee mu yàqu te mënoo koo boole woor boobaa ngant di la dab yonent bi sax doon wax ne ñi ngeen di liggéeyloo bu woori koor ñëwatee na ngeen leen ko waaye faral képp koo xam ne sa surga weeru koor ñëw na nga waaye fal ko liggéey ba ci moom ba mu jàppandal ko ba mu bu ko bale koor ga loola nee na tuyaaba juru yéeg la leen li ci bindal daal Serigne Cheikh ci ngànd yi daganal nit ki liggéey bu metti rek fekkee mën naa am beneen liggéey na ko wute te bàyyi liggéey boobee wala mu bàyyi liggéey bu ba ko ga jeex mu door koo tàmbaliwaat wallaahul muwaffiq li sawaab kii moom day laaj mu ne xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu wax ne innama al amalu binniyaat wa ma nawa mu ne xadis boobu lu muy teg waaw sëriñ Seex da hadiis boobu bu wér la boo xam ne bari na ko koy hadiis yu ko andi rawatina imaamul Buxaari yi andi na ko ak yeneen ci olamaawul xadis indi nañ ko muy addis wér boo xam ne nii euh, liñ ciy dégg rek mooy yonent bi aleyhi salaam daa wax ne jëf lu mu rëy rëy rek yéen ji moo koy moom la ñuy xool innamal amal jëf yëpp binniyaati ci yéen la nekk jëf lu mu rëy bu fekkee yéen lalu ko duñ la ci bindal dara ci tuyaaba kon la ci tax ñu bindal ci tuyaaba moo tax boo jàng ci mboolem faraid yi ñuy def ci xeeti jaamu yàlla yi bañ la ci njëkk wax mooy nii niyatu yéene moo jiitu mboolem xeeti farata yi moo xam faratay koor faratay julli wala faratay aj màkk buñ la ci jàngal gu ne rek yéene leen li njëkk xamal ne moo ci jiitu kon yéene moom mooy tàggale ay jaamu yàlla yu al ibadat wala adat ndax ki nga xam day day doon doon jàng li ñoo jàng mooy raxas cër yooyu moo kii jàpp ñoo bokk lu ñuy def daanaka ñoo bokk cër ñuy raxas leen wutale rek mooy kii jàpp daa yéene jàpp kee di jàng la mu yéenewu ko ci kon yéene noonu lay tàggale diggante al ibada wal aada yéene moo tax jëf ci soppaliku ak jaamu yàlla ci yéene nekkul nag ak lu mu rëy rëy kenn du ko jàppe ak jaamu yàlla moo tax bunt la hadis la boo xam ne bokk na ci xawaidul eh, islaam yu mag yi mooy innamal amalu binniyaati moo tax bari na yoo xam ne bu ñuy jàngale ci la ñuy Eh, njàngale ma door a jàll cee ci des wallaahul muwaffiq lis sawaab kii moom day laaj mu ne ndax daggan na ci ku nekk ci jàkka ji mu dem beru ca ginnaaw sàpp sa moom képp ngir tàngoor wi dafa metti bu ëpp wala day sëqat te bañ naa lor ci sëqat si mu dem beru ca ginnaaw sàpp sa moom képp ànd ci julli gi waaw soo insaan fekkee loolu beru bañ dugg ci sàpp si fekkee ngànt ko waral moom dara newu ci fekkee ngànt ko waral euh, rawatina li mu mujj wax nga xam ne xëy na lu ko dal la mu bañ caa lor ñu ci des bu boobu day war ci moom sax day war ci moom mu beru bañ a jax soog nit ñi fekkee daa yor jàngoro joo xam ne mën na ko wàll nit ñi kooku sëñte nekk ci biir nit ñi di jullit seen biir mënt ñàkk a jullit ci mbooloo mee na beru foo xam ne moom doo nga fay nekk ba loolee ko daal mën a bañ a wàll ñu ci des euh, bu fekkee nag daw daw tàngoor rek la xëy na loolu moom mu dootee ba kanam tuuti rek mën na jànkoonte loola wéy waaye dax alaa kulli xaalin moom eh, bu bokkul sàppe se beru fee di julli tam te am fekkee dara jotu ko nag te mën naa dem ba ci si biir sàppe se la gën mooy mu ñëw bu sës ci biir sàppe si dugg ci sàppe si loolu lañ sàkku ci moom ndax dañoo sàpp ñoo sàkku fekkee ngant amul sàppe yi sësaloo waaye nag fekkee ngant am na Euh, boobaa sàppa yi mën nañoo sore tuddee julli gi baax te julli gi baax ndax julli mbooloo boo séenee ki lay jiitee nga xam la muy def rek nga man a roy ci moom ak lu ngeen sore sore donte ak dox dox seen diggante sax lu tee baax na xam nga boo jàng xalil naa la wax ne ak dëx mën naa dox sa diggante ak sa ilimaan waaye yaa ngi koy seen muy julli donte dox gi doxal seen diggante mën nga roy ci moom kon loolu lu ci natt la wala mbugal la wala coono yoo xam ne ni attanoo ko kon loolu dara newu ci waaw wooree ba ngoon wala ci bëccëg wala waxtu bu ma doon ci waxtu koor gi ngay seetlu noonu dara newu ci moom nga woon ci geneen ñooy am rek wallaahul muwaffiq lis-sawaab moom day laaj mu ne yan charte moo wara a ci kiy jàng alquran bu agsee ci barabu sujjóot mu door a sañu sujjóot waaw sujjóot de Serigne Cheikh ci ñu ko sujjóot ci laawa sunna la sunna la soo xam ne boo àggee ci barab boo xam ne war na faa sujjóot nga sujjóot waaye nag dañ ci sàtt dañ ci sàtt li ñuy sàtt julli rek li ñuy sàtt ci wàllu laab nga laab ci laabu yaram ak laabu yére euh, te jublu xibla suturaal sa awra kon boole nañu sàtt sàtt rek ngir mu wér loolu la ñuy sàtt tam ci sujjóotu tilaawa mu door a wér fekkee ne da déglu kuy jàng dañ cee boole sartaala ci ki jàng na doon koo xam ne mën na laa mën na mën naa mën na ilimaan nga mën na laa jiite xam nekkul gone walla jigéen bu jàng sawet alxuraan te sart yi daje ci yow daje ci moom kon bu àggee ci barabu sujjóot bu sujjóotut moom sax war ngaa sujjóot yow mu koy déglu yow mi jàng nag liñ la sart liñ la sant mooy bu àggee ci barab yooyu ñu war a sujjóotee donte ci biiru julli nga nekk tam nga sujjóot ko bu fekkee nekkoo ci biiru julli te sàtt yi nga xam ne ni kuy julli moom lañ sàtt nga nga nga matale ko nekk na ci yow bu àggee ci barab bu ñu war a sujjóot nga sujjóot bu dee fekkee waxtu wa ngay jàng nekkul waxtu wuñ tere ko ci sujjóot fekkee waxtu la waxoon dañu tere ko ci sujjóot nag loo xam ne dañ wax da ngay bàyyi laaya boobu nga toll muy baat ba sujjóot ba nekk jël ko eh, bañ koo tudd tudd la ci kanam fekkee da ngaa ci waxtu woo xam ne suñoo sujjóot waxtu woo xam ne kenn suñu ca naafi la kon noonu ngay def wallaahul muwaffiq li sawaab eh, kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa gént di jaaxasoog jigéen ci bëccëgu bu weeru koor waaw sax dara newu ci mooy al ixtilaam kooku yàqut koor du tee koor baax na mën naa continuer lu ko yàqal dara insha allahu taala eh, kii moom day ne jigéen la joo xam ne dafa woor waaye boroom këram wóorut nee na borom kër bi nag daal di koy forcé sëy ak moom muy laaj lan mooy àtte lislaam ci loolu waaw kooku de kooram moom day daal dog moom soxna si koor gi yàqu na waaye nag la ci waroon muy kafaara moom boroom kër boobee lañ koy sant borom kër ba du ko forcé ba def loo ko loola kooku la sant mu jooxeel ko kafaara googee euh, loolu boo demee ci borom xalil mu ngi koy wax naan aw zawjatin akrahaha ba muy tuddee di lim xeeti kafaar yi nga xam ne nit ki moo ko war a gàddul kaneen limaa la nite lu mel noonu koo xam ni daa force soxnaam ànd agum ci digg bëccëgu koor kon euh, kafaar da ciy war waaye nag moom góor gi moo koy gàddu soxna som lañ koy sant rek mooy bu koor ga mu fayaat bis boobee ñu bàyyi xel tam kooku euh, góor gi buy kafaara dañoo wax ne benn mu kafaaraat ci leel ay miskin wala ci goreel ab jaam waaye mënta kafaara uh, woor ndax woor kenn du ko defal keneen kon sañ na koo kafaaral ci kenn ci ñaari anam yooyu wallaahul muwaffiq li sawaab uh, jërëjëf sëriñ Cheikh bu Assane kon ginnaaw ñu ngi ci fukki fan yu mujj ci weeru koor gi dañ doon sàkku rek ay laabire ak ay fàttale ci jëm ci mbokki jullit yi ci nuñ ko gën a mën a jàppee ak nuñ gën a mën a góorgóorloo ba mën a màng yiw yi nga xam moom la ci yàlla digg ci fukki fan yu mujj am na rek d'accord mm-hmm. kon day ni nga ko waxee rek euh, walilahi alhamdu weer mi ngi dem àgg nañ ci bis yi ci mujj muy asulusul axir muy al ansul awaaxir min ramadaan muy bis yu màgg a màgg nag yoo xam ne sax na ci addis ne bu masaan agsi yonente bi alayhi salaatu wassalaam daana ko dundal dundal goo xam ne ku ràññi ko lay doon kaana isaa daxala al ashrul awaaxir shadda mazarahu wa ayqasa ahlahu saa yu masaan ñëw day laxasaayu séenée lam daan def ci ay jaamu yàlla mu yokk ko ba sax waa kër gi sax daaw leen may ñuy nelaw ci guddi yooyu dañ koy dundal guddi gi yëpp ba guddi gi jeex kon ay xéewal la boo xam ne nii agsiwaat na ñu góorgóorlu ci baax képp koo xam ne am na loola woon ci njëlbeenu koor gi nga jëm koo dabaatal ci ay jaamu yàlla yoo man moo xam ay julli la ay naafi la moo xam ay jàng alxuraan la moo xam jàng xasiida la salaatu ala nabi ak dundi sa dundule sa alal ci yoonu yàlla ak mboolem xeeti jokk jokk ak mbokk mboolem xeet jaamu yàlla yi nga daan def nga yokk ko bu baax a baax ndax guddi la yu màgg màgg yoo xam ne guddi gën a màgg ci at mi muy laylatul xadri wax nañ ne ci lañ gën yaakaar ci guddi yi ñu toll lañ gën yaakaar yaakaare rawatina ci guddi yu tool yi guddi yu tool yi guddi yi nga xam ne tool la yooyu gën ko ci dàkk te góorgóorlu ci baax la fa séen ne xam ne innamal ahmaalu bi xawaatimiha jaamu yàlla ak jëf ju nekk mujj gi moo ci ëpp solo kon nag ginnaaw dem nañ ba agsi ci mujj gi ñu fexe ba rafetal ko bu baax a baax man ko ci anam gën a rafet fexe ba mu àgg ci anam gën nga xam ne moo gën a rafet ñaan suñu borom dafa ñu feex mën ko àggale ci anam nga gën a rafet te bindal ñu ci tuyaaba yi mu ci digle te jafe-jafe yi àdduna bi toll mu weesal ñu ko jàmm delloo siwaat jàmm ci àdduna bépp mboolem tawaat yi ñuy jàmbat yàlla jële ko fi eh, ci barke weeru koor ak barke alxuraan bi nga xam ne moom la suñu borom wàcce woon di delluwaat di santaat Serigne Cheikh ñi nga doxale waxtaan wi di sant daayira bi tam ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi ci wet gi di ñaan suñu xam gën leen ca defal ndam te ñu yàgg daje ca ngërëmam te kilifa gi nga xam ne moo na ci kanam taalibe yi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom sàmmal ñu ko àggaleel ko yéeneem kon ñu ngi wax ne wa kullu aamin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh Bousso Ahsan ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi na ko ci laaj yi nga xam ne moo fi ñëwoon laaj yi matale na te yaatu na te tege na ci xam-xam kon ñu ngi lay sant ci turu daayira muqaddamatul xidma di ñaan sunu borom mu nangu liggéey bi te barkeel ko te wéral cër yi yokk fan wi ba li nga yéene ci lislaam yéene ko ci liggéeyal Serigne Touba yàlla defal la ci lu kaw njor kon ñu ngi fàttali ne suba incha allah ñu ngi fas yéene waxtaane li ñuy tuddee code de la famille bi nga xam ne moo nekk ci réewum Sénégal nan la ko lislaam gise am atte yi nga xam ne moom la ñuy atte woo ci réewum senegal ci wàllu fa njaboot gi wàllu sëy ak la ca aju nu ko lislaam gise Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud moom moo ko war a def suba ci ginnaaw takkusaan kon ñu ngi koy bàyyi loo xol ñëpp di sant ñi àndoon nañ ci jataay bi di déglu ak ñi topp ci bitti ci rajo bi wala ci télé yi wala ci internet bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal ñu jàmm yàlla bu ñu nangu te jégal ñu suñu bakkaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.